mbokki ci tedd yi mbokki tedd yi mu ngi ñu ngi dellu si waat fii ci ndigal Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké ak xalifatul aam li tariiqatil muridiyya suñu borom bàyyi ko fi ñu yàgg lool te mu ànd ak wér naan yi nga xam ne am na ci islam am na coono suñu borom may ko kàttan ak wér lépp mu mën kon kàddu yi ñu yëkkati ci digganam ak ci lam dañ ko def ni ñu ko baaxoo defee waxtu bi mu màggal Touba bi jub seen ñu daje fii ci kër Serigne Touba bi ndax màggal saa su jàllee dañuy tàmbali di waaj a dégg waaye Serigne Ousmane ñi nga xam ne mooy coordinateur kuréel bu màggal moo koy jiite waxtu bi ak seen laay ñëw ngir soññaat leen yeesal leen li tax ñu ma ko teel rek mooy doy ak ñàkk doy mënta ànd ndax ñi ci liggéey ñëpp ku ci ne dañ laa xool ba gisal ko sëb ak sa doy moo tax ñu dénk leen rek di liggéey ndax liggéey Sëriñ Tuubaa di su jéem xarit di su jéem marchandise kuñ ci gisoon te xam ne liggéey ba itam jàpp nañ ne defoo ko ni ko war a def bu boobaa danañ am fulla yi wax na leen di soor waaye nag alhamdulilah yàlla def na bu ñu ko tàmbalee ba léegi ñoom li ma ko seqal sëriñ bi boole ma ñu ànd liggéey bi kenn ku ci ne dama séntu ci yow ak xunte bi waxtu wala liggéey ba ci fi nekkee sëriñ bi waaye itam ni Cheikh Mahamadou moom ñu ma ko daanee kilifa bi ko njëkk tàmbalee ci Cheikh Mouhamadou Bara Cheikh Sidi Moussa noonu laa ko def wax ci moom man ma cee tàmm benn jéego danaa delluwaat ci moom laaj la ko liggéey waaye boo agsee rek moo ne la liggéey bi moom dal na sama xel lu ci jub ci nekk mën nga ko waaye teewul la lépp la ndigal moom saa su agsee donc yeesal laaj ko nga xam ak liggéey te luñ ci def tamit dañuy fas yéene day ci ak ndigal ak ndel kon màggal yi xam nga li ci ndax yées na ci ñaari weer kon daanaka tàbbi nañ ci biir muy xew-xew bu mag bu boo xam ne bokk na ci xew-xew yi gën a rëy ci àdduna après ñëpp xam nañ ne moo fi gën a rëy Sénégal jéem ko kon xew-xew bu toll noonu. di xew xew diine bu waaye itam wàllu koom-koom public yi képp koo xam ne yaa koy seet bu ko taxaw war nga saa accès nga feex ba fa nga tolloo naaw bu weesu léegi loolu nag màggal gi moom li koy li ñu ci wax rek mooy ne ca ndax nag bi góorgóorlu ba àgg ci bis ba waaye loo koy jegal loo koy defal moom bis yu ko nekk loolu moom gëm nañu ko te sóoraale ko ci liggéey muy bis bu mag bi tam boo xam ne li ci Serigne Touba daaneewoon wax bu agsee na ko ci ñëpp sant yàlla moo tax ñu ngi ci góorgóorlu di ci def yitte di ko di ci def euh, mu toll nag ñëpp xam nañ daje bu mu toll ñu jóg nag ci tàbbi ci biir ndax CRD bi ñu war def njëriñ ndax defoon nañ CRD. Serigne Ousmane moo ko jiite woon ko waa communauté bi yëpp ñu defaat CRD bi Mbàkke moo itam jàll na ci jaww CRD bi rek ci laa daa léew ànd ko bokk yi sëriñ sëriñ bi ñu boole ci liggéey alam ba ñu tàmbali ko incha allah ba bi topp kon nag màggal gi agsi ren nag yàlla def def màggal Tuubaa ni ñu ko tàmbalee sëriñ bi dégguñu ko fañ ko tàmbalee ni nga xam ne mooy conférence yi ci daal di fekk xooloo yeeg xooloo yi ba ñetti at yu bëri ba fi ñu bëriwul ko def nañ ko daaw ji kon day mel ne déwén incha allah ci lañ ko war a defal ci ñoo ko comité bi waxtaanee ñu ci waxtaanee ba déglu ci ñu ko nasee yi ñu ci daal rek mooy formé yëpp itam gis nañ ko te am na njëriñ. yaatal bi ñu ko yaatal bitim réew itam am na jeexi am na ndax ba ñu koy tàmbali màggat yi da daal dem ba agsi ci biir màggat bi te ku ci bokkul du ko xam waaye léegi yéen dañ ci amoon mel na suñu doom fekk si nañ ci suñu tubaab noonu ndax la doon na xëy ba di jubluwaay bi ci objectif mooy màggat yi doon loo xam ne xam na ne xew-xew boo xam ne adduna sëpp ko war bokk adduna sëpp ko bokk.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 ñaari xew-xew yu rëy da ci am ndax màggal Tuuba doon na sëkk xew-xew ba ca doole Tuuba te ñu war cee ubbi jàkk yi Masaalikul Jinaan loolu itam dooy sëkk ab xew-xew ndax ak Cheikh Mouhamadou Mountakha moo santaane woon wax ne nañ ko tàbbal ci biir waajtaayu màggal Tuuba ba moo ko waxee itam ci laa jokkoo sëriñ Mbàkke yu fay mi nga xam ne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 rawat na man awma xalaat awma ci dogal awma bëgg-bëgg nu mu gën a rafet ak nu mu gën a baaxee lu ma ci xalaat rek ba wala ma jàpp ne lii mooy li tax mu gën a baax naa leen ko wax waaye lépp lu woon sama bu ma ko waxee itam ma ne ko ñu daal amul jën yitte lu weesu lu nga bëgg nga ko ba ma fa jugee itam laa ko joxaa ndigal ne ko kon nag ma itam defaat naa la ngay nekk coordinateur comité bi ñu taxawal fa man ma nekk seen jëwriñ yow nga doxal liggéey bi ànd ko commission yi nga war a tànn ngir ngeen mën doxal liggéey ba ñoom taxawal nañ seen comité suñ bàkk yi taxawal na ko ànd ko ñoo ko war a àndal ba def nañ ay ndaje yu bëree bëri ba fi nii sori loolu nag day xew xew bu rëy boo dafa tabbi biir màggal ndax loolu itam day ndamul lislaam di ndamul Sëriñ Tuuba ndax foo xam ne buñ ko fay jaarale dañ ko fa jaarale ngir sànki ko ak mettital ko ngir bëgg mu tàyyal ci liggéey bi ñuy liggéey rasulullahi sallallahu teg ko fa ay metti yu tiis ba sëriñ bi ci biir ay muy wax ne ida zakartu zalika al mabita wa zalika al amira wa thubuta taaraw ila jihaadi bil almaahi nafsi walakin zabba anni maahi kon bu demee ba addunay dox loo bu téeméeri at yu tey mu dem ba jàkk ji gën rëy ca Ndakaaru bokk ci jàkk yi gën a rëy ci Afrique ñu taxawal ko Serigne Touba foofa kon Serigne Touba loolu aw bàkkam la waaye ndamam la waaye li ñuy wax ndamam la ci biir noonu ñu doon xeex muy jàkk ju rëy yoo xam ne lu jéere jege ñaar fukki milliards wala lu ko mat tàbbi na ci biir lépp di àll bi tari bi suñu Tuubaa loolu itam di ndamaat ndamaat loo xam ne nii jubaay Tuubaa nekkoon ndamul yoonu mu lay itam moo ko defee kon xew-xew boo tuuti ci lislaam xew-xew bu tuuti ci biir réew mi incha allah ñoom ci lañ ko tënke xam naa ne bu sëriñ bi di wooteel boobu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 ba bëgg mu mel yàlla def ca pàkk bu njëkk ba mu yabaloon Cheikh Mamadou ñu mu teqee yàlla dugal ko ba pàkk bu mujj bu ñëw ci xalaatu Cheikh Mamadou ci la waxee Serigne Bakk yi fay ne ko taxaw ma di Cheikh Mamadou suñ borom jotu koo dogal waaye moom mu dolliwaat ci juróomeelu solo ne ko. way juróom bu tedd ba teg ko ndax bi nga xamee ne Cheikh Mouhamadou Moustapha bàyyi ko nag ba liggéey jumaa yi ko àggale ci la ci dolli juróom so defee ko ba ca isaat bi fi ñëw moom ñëpp yàlla suñu bopp doon seen yàlla suñu Cheikh Mbacké moom nag mu am tawféexi liggéey bi nag tàmbali ci loxo bi mooy yebal Cheikh Mouhamadou mu joxe ndigal mu wax ne ne tàmbali liggéey ci 2012 ci lañ ko tàmbali mu doon liggéey bu jafe ndax sëkk ba rek kenn xamutoon ëpp na junni camion loolu kenn xamutoon ndax gas nañ ko bu ma juumut lu ëpp mètre suuf tonni suuf sax sëkk ko ba mu mu liggéey bu ñu moom liggéey bu tuuti waaye taw fi yàqu suñu am ci moo tax ñu jàpp ñetti bis benn bi ñu jagleel ko Serigne Saliou Mbacké mi ba ca toppaat ñu jagleel ko Cheikh Mouhamadou Bara ba ca tëjewaat ko delloo ñu ko ci seen liggéeyu maam boobu ñu doon liggéey jeexal ci seen kàttan jeexal ci fekk seen Tuuba mais moom ñu ne ma ahadullah alayhi fa minhum man man yantazir wa ma badalu tabdila insha allahu saalihin sidqin bu ñu àggee ci àjjuma ji rek kon programme yu fees la yoo xam ne bu ñu dee ba àgg ci àjjuma ci la Cheikh Mouhamadou Mountakha ñëw ànd ak njabootu Sëriñ Tuuba gépp ak mboolem cheikh yi yoon yi ak mboolem taalibe yi ak mboolem bokk jullit yi ak këri diine yi ak mboolem koo xam ne am jullit la ak ci biir réew mi nag ak bitim réew kon loolu bis bu màgg la boo xam ne bisu taarix la ci yoon bu bisu taarix la ci Sénégal ba ca France ñoom itam ñu ñëwoon ci Cheikh Mouhamadou Mountakha muy dellu si ci li ma waxoon rek ngir waajal dafa màgg bi ñoom ñoo am yitte ju rëy ju kawe ngir fas yéenee delloo Sëriñ Tuubaa njëkkal defal Cheikh Ahmadou Bamba semaine culturelle nañ ko defoon 1979 ci jamono Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñu amaat yitte ak pëstéefu defar ko dafa seen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 mi ngi yaatu dënn gi ñu war a yaatu dënn ci biir njàngaleem Sëriñ Tuubaa ngir mu war a yaatu ndax boo koy seet njàngaleem Sëriñ Tuubaa fu mu àgg rek war na ko wax suñu yaatu sax kon nag ba ñi nga xam ne xamul ñu doomu Sëriñ Tuubaa ñu fexe ba xetul sëriñ bi xëy na ndax falawlaa nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyattafaqqahu fi diin ba ca des it mooy li rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy ko suñu borom wàcc alxuraan ne ko فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك kon nit ñi war a yaatu jëm am na ci thème boo xam ne ci loolu bisum ñeenteel bi mi ngi jëm ci kasbul xalaal te mooy fàggu la yow mooy finance islamique yi ñu ngi dox waxtaan ak xidma ci biir yoon ba ca desit bis ba ca desit ñu ngi ñu ngi waxtaane ndonol lislaam ci biir yoon bu nan lañ ko war a waggare sàmm ko ba mu ñoom ba dara lu ci mejj dara lu ci sikki am na ci bis thème boo xam ne loolu lañ cee waxtaane am na yi benn colloque international boo xam ne ci biir semaine culturelle la boo xam ne borom xam-xam yu mbàgg ñu ci waxtaan bokk na ci programme bi nga xam ne am na ci biir waaye tamit màggal ko xam ngeen ci daaxal ci des seex sëriñ bi buñ ci àggee di sama defaat bi nag waxoon na ma ne naa ko jot leen bokki taal bi muur yëpp rawatina ñu dëkk ci dëkk yi ci ndigal li mu joxoon ci li weesu ci secrétariat bi ndax loolu lépp yéen ma yéen maa ci am ci ñi dëkk Touba rek la te xam ne màggal yi ñëpp xam nañ ne tàbbi ci nawet incha allah buñ demee ca serre bi xam naa bokk na ci lañ fa war a gën a waxtaan ndax dëkk bi mbedd yi taay bari na kenn amul fa jaar te màggal yi mën naa am tàbbi ci biir nawet bi xëy na yàlla rek xam ndax. inna laa ay doxal ay taw bi kañ lay tàmm ne kañ lay suñu borom rek ko xam kon nag ñu ci war ci sababu fexe ba nit ñi mën a màggal si jàmm te duñu jël di soobee kon loolu itam sëriñ bi ñu ci sant ko taal bi di leen ci gërëm ngir xam na ne ba mu ko santaane seen njëriñ ak seen njëriñ rek a tax waaye jëfe nañ ko ba defe ko nga xam ne weesu na mu ko séntu bisu bu njëkk bi itam njàngam xasida mu ngi ci daal def ndax dañ ko doon ubbee njàngu alxuraan ci bëccëg bi ci jumaa ji bu guddee ñu def fanaane ko def njàngu xasida ci jumaa ji loolu itam buñ ci àggee ñu ko daal di ñu ko def waa Hizbut Tarqiyyah itam liggéey bi mu daal ñoom fas nañ ko mën a ci bis bi njëkk ci weeru safar mooy bâche bi ñuy def fii ren nag dañ ci am xalaat boole exposition bi ndax daaw dañ ko doon def dër waaye gis ne sori na mu xawoon a tardé ci. xalaat nañ rek ma ci waxtaan ba tënk dañuy fexe ba njàngoom xasida mi ak bâche exposition bi dañ koy boole ci benn jotaay ci benn bâche loolu dañ ko fas yéene am na nag seen xalaat yu koy defee waaw ñoom itam fas nañ ñu ko gën ko mën a jëriñoo ci biir yi itam waa day raw du royaxi waxtaan yi ñu baaxoo defal ci màgg bi ni ñu ko baaxoo defal ndax ñaar la am na ci yoo xam ne mooy yi ñuy arrêté di ko teg waaye am na ci yoo xam ne dañuy dem ci penc sëriñ bi ñi nga xam ne njabootu sëriñ bi wala mag mag yi ñu dem ba ci seen biir kër yi waxtaane ko kilifa yi nga def ay gëstu yu yaatu ren nag ñu tànn ñoom wala yow wala xim mooy sëriñ Dame Abdou Rahmane nga xam ne ñëpp xam nañ fi mu féetewoon sëriñ bi ci alxuraan ak sëriñ Cheikh Absa Mbacké ñoom kon loolu bokk na ci liggéey bi ñu njëkk a tàmbali ci safar bi waa kuréel ak Serigne Cheikh moo sëñ bi Serigne ñoo bokk ndey bàyyi waa kuréel intig bi ñoom itam liggéey bi ñu daal di ci màggal gi comme ni ko ñoom day rob ay def ñoom itam am na yu ñu daal baaxoo di ko defal ci daraay borom xam-xam di di gëstu ci mbirum sëñ ci biir kilifa yi ñoom itam liggéey bi danañ ko tàmbali ci premier safar bi ba àgg ci bis ala bi daaw ñu dem kër cheikh Mouhamadou Fari ren jii itam kër cheikh Mouhamadou Bara Mbacké ci lañ koy ubbee tàmbalee ko fa buñ fa jugee itam danañ dem kër sëriñ Afia Mbacke mi nga xam ne mi xam ne ñu dem ci sëriñ bi di doomu sëriñ bi moo ànd sëriñ buñ fa jugee itam danañ dem kër sëriñ Mamadou Mbacke mooy itam ñëpp xam nañ li mu doon ci biir yoon ak li mu ci sëriñ bi ak diggante sëriñ kon ñoom itam kër yooyu bokk na ci yéen tànn ngir fas fa yéene dem ngir xeetu seen kii rek. ak def ay gëstu yaatu yoo xam te ne xam nañ nii ngir ñu gën a xam ñu seen taxawaay bu dee ba màgg gën a jege itam ba bañ ne suba la ginnaaw suba la njàngoo alxuraan mi nga xam ne baaxoo nañ daa ko def nga xam ne ñett fan yëpp njàng du taxaw te daara yu bokk ñoo koy taxaw ne daara yu jeex sa ngir xam ne màggal bi duñ ci defal sëriñ Tuuba rek alxuraan moo ci dugg da nga ko abbuté ko moo nekk loolee itam nañ nañ ko def ko ci ci bis boobu itam bokk na ci bis biñ jagleel délégation yi bàyyi ko bitim yëpp rawatina waa Mauritanie ngir xam seen digg yu yaatu buñ fa jógee ñëw ci siyaare si ko Mustafa mu yeew leen ñu dem àggali seen moom ci bisu màggal gi itam conférence bi raw reexee day def ci yoon bi danañ ko def ak bi ñu baaxoo def ci bisu màggal gi ci guddi gi kon loolu bokk na ci programme yi nga xam ne danañ ko def mu door a jeexee nag ci cérémonie officielle ci biir loolu ci diggante yi nag am na ci yenn yoo xam ne ñu ngi koy tënk te ba guddi bu fekkente ne noppi bi rek dees nañu ko jot li ngir ngeen xam programme bi nga xam ne war nañu ko def ci magal yi comme daal loolu mooy tënk bi nga xam ne bëggoon nañu ko jot li bokk jiite bokk taal bi comme ren day mel ne conférence yi leer na xam ne fi ñu ko war a defee kon ku ci dégg dëkk bañ koy defee ña fa woon ay na ci at ñëpp ñu maase ci jàppale ca ñooñu ànd ko ñoom ngir xam ne jubluwaay bi dara du weesu. i'laa kalimatillahi ni ko Cheikh Mountakha waxee i'laa kalimatillahi rek hiya al-ulyaa loolu mooy yëkkati bu Sëriñ Tuubaa ndax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah mooy yëkkati baat laa ilaaha illallaah mbirum Sëriñ Tuubaa rek fi ñu koy waxtaanee fu ne mu ngi tàbbi ci wa man yu'azzim hurumaatillaahi fa huwa xayrun lahu wa man yu'azzim sha'aa'iral-laah fa innahaa min taqwal quluub kon loolu rek lañ amoon ci kàddu yi ñu leen di wax bu ñu demee ba weesu mag Daaru Xudoos rek nañ ko daa def fii toog ak ñi war laaj yi ñu war a laaj te fekk lépp gën a ngi sant ñëpp di sant sax lim tur yi waaye damay ba ma fàttaliwaat comité bi bu ci ne ka ko jiite ak taxawaayam la tax ñu def waaye ñoom ñëpp ñu ngi leen sant leen bu ñu àggee ca ñaareel ma ñu doon ko leer na leer mboolem ñu ci yëngutu ak ku ci ne ak la tax ñu yëngu kon ñu ñaan màggal bi ñu tàbbi dem si dara lépp loo koy jëfal jëf yooyu eh, da nga koy perte kon nag yàlla ngeen di dund ba mboolem yàq ji yàlla musul ji ba atiu llaah wa atiu rasuula laa tubtilu a'maalakum loolu nag loolu di ci tànn kon nag nit doomu aadama lu muy jëf war nañ fexe ba di ko sell di ko leen possible ndax mu amal ko njëriñ ci àdduna amal ko njëriñ ci àllaaxira wassalaamu